la gestion des ressources au Sénégal li ñu am yëpp comme richesse bëri na bëri goo xam ne bëri jàpp nañ ne waroon na ñoo dem fii te ci scandale bi mooy nañ koy joxe ba du profiter les les les Sénégalais. Euh, moo daaw xam nga j'étais au lycée bu ñu de la MIFERSO. Mhm. fer du Sénégal oriental. <coughs> loolu mooy lu lu qu'est-ce que cela signifie <coughs> mooy dama wax léegi ni Ablaye Wade. dafa mos a xaw moytu ay affaire yu mine ak pétrole daf ko xaw a moytu. ndax lan. li lu mel nii moo tax liy dugg ci suuf kërti kërti yi dafa bëri un exemple. Mhm. xam nga Abdoulaye Wade avait dafa njëkkoon a jël les euh, Kumba ressources yaa ngi fàttaliku Kumba ressources les sud-africains mu jëlee loolu ArcelorMittal c'était mhm. l'entreprise métallurgique la plus importante d'Europe te il se trouvait le, le siège le plus important la partie la plus importante se trouve dans l'Ukraine actuelle Ukraine mm -hmm. et l'autre en France Mittal bu mu ñëwee dugg ci Arcelor moo tax ñu ne Arcelor Mittal parce que mhm. l'entreprise c'était Arcelor d'accord le président bu mu gisee ne Coumba parce que le plan d'Abdoulaye Wade c'était quoi xam nga les Sénégalais euh, et même certains cadres bu ma leen di déglu je sais qu'ils ne comprennent pas xam nga dans le système dafa am lu ñuy wax la mine. non xam nga non non on verra euh, dafa am mine après la mine il y la sidérurgie. Mm -hmm. il y a la métallurgie am na ñoo xam ne il confond <coughs> sidérurgie et métallurgie. bi c'est acier bi c'est fer. xam nga euh, boo jëlee euh, mine de fer par exemple c'est du sable rouge boo xam ne en général lu ñuy wax le taux de concentration des faible. Mm-hmm. boo demee ci euh, kii bi sidérurgie xam nga day am de des fourneaux yoo xam ne dañ koy mel ni luy wis ndox bu ko defee ñu def ko comme ay boulettes. Mm-hmm. ay boulettes le truc de fer la maintenant bu ñu ko defee boulettes yooyu. bu demee ci sidérurgie bi le hauts fourneaux xam nga déggoon nga <laughs> avec le livre de Germinal mmh, mine de fer de de de la Corrèze mmh. et mm-hmm. donc foofu ci hauts fourneaux yooyu lañ koy toggee ces boule ces boulettes de fer là lañ koy toggee mu mel ni maintenant boo boo boo demoon bu booru Richard Toll boo xoolee à droite boo jógee Richard Toll di dem Dagana danga gis des des des des des bottes de paille gis nga bottes de paille yooyu nu muy concentré ne compact mel ni ay ay bottu kii ballu fuga jaay mhm. gis nga nu muy mel noonu la fer bi di mel maintenant ñu dugal ko ci li ñuy wax des des des convoyeurs am na un texte que j'ai fait euh, mu toll dama ne dans le projet de Abdoulaye lu ñu waroon a def pour euh, gën a perfectionner euh, l'optique ba Abdoulaye jëloon xam nga ne woon la à ñi on devait construire à Bargny euh, un port minéralier de baax Bargny mm-hmm. ñii dañu ñëw jaxase affaire bi ba kenn xamatul est-ce que le port Euh, moo tax euh, euh, aujourd'hui de un débat bu ma duggoon dans un débat profond ndax xam na ni moi j'étais de la CIS avec Macky Sall mm -hmm. tous ces projets je les maîtrise xam naa leen bu bu mu mënoon a discuter avec mais loolu indiwuma fi mhm. dama bëgg wax ne rek ni le port minéralier de Bargny au lieu la transformation actuelle bu nekkoon noonu la ñu gérer sunu mine lu Moussa Diop wax du am xam nga bu ñu jógee dans les mines de fer de la Falémé Kédougou te loolu dafa nekk loo xam ne euh, dafa am lu mat environ presque trois cent à cinq cent kilomètres mën nañu def des tranchées qu'est-ce que on propose là mhm. de la mine da ngay gas su sol lay doon avec des convoyeurs avec des microcontrôleurs ñoom gis nga ce ce fer la dañ koy indi mu ne au niveau du port de Kaolack foofu la ñuy construire la sidérurgie parce que day soxla ndox. Mhm. au niveau du xam nga day permettre en même temps le développement du port de Kaolack. de Kaolack en même temps où longer la côte on va encore faire des tranchées avec des convoyeurs microcontrôleurs nga xam ne ñoom bu ñu ci suuf si lay kii affaire bi day daw. Mhm. avec quelquefois une vitesse même qui peut être supérieure à trois cent kilomètres à l'heure. waaw ñoom ñooy indi ce fer là. Maintenant, où sera la métallurgie à Dakar Ici, vers Mbao. bu ñu jógee kaw la c'est du fer boo xam ne dañ ko togg gis nga boo gisee day mel ni euh, gis euh, naa da ngay gis euh, bu ñuy def de l'or gis nga kii boobu day bax noonu noonu lay ñëwee mhm. noonu lay ñëwee ba te convoyeurs yi ñoo koy indi mu mhm. ñëw à Mbao et de Mbao à partir de Mbao on va faire Euh, lu la neex daal comme gis nga boo demee booru caisse de sécurité sociale ñuy defar ay ndaa ak yooyu xam nga dañuy def moulir ba le format après affaire bi ñëw parce que la day mel ni rek bu bu ma defoon gasoon benn pax nii jël après mu ñëw di sotti gis nga loolu c'est c'est parce que la température peut être a trois 3000 degrés donc c'est contrôlé de façon automatique mm-hmm. nga xam ne ñoom ñooy tuur boo xesee def ay plateau ay Profili ay Lamini et cetera ñoom ñooy tuur rek. mu jël euh, mu jël format bi li mu bëgg a li mu bëgg a wax foofu. mooy bu nekkoon defoon nañu. Mhm. l'optique de Ablaye Wade. mooy bu ñu bu ñu ñëwee ba am sunu or wala ñu am sunu fer. Mhm. dañuy ku ñëw ñu nee la kaay gis nga sa projet la comme lii ma wax nii. Mhm. ku ñëw soxla dañ koy tegal. mën na ko wala mënu ko bu ko mënu nga jël keneen xam nga Coumba Rassoul bu ba Abdoulaye Wade ne dama bëgg ñu defar un port minéralier à Bargny et je veux aussi une métallurgie bëgguma ñuy jël sun sama sama bi du ko yóbbu France wala feneen di fii laa bëgg Sénégal Coumba Rassoul di nakk-nakkal donc gestion bi Abdoulaye Wade mu ci ëppoon fulla nga bëgg waaw non non da cee mus ta caaxaan nee na non daa daa deful dara fan moom laa la ko ñëw ci ci. kon tension bi ah, indi. non boo mu suivre dama la bëgg a wax ni. Mm-hmm. ñun li ñuy def mooy kafu ñi te waxu ñëw da ngay def wala doo def dañu ne yow ñëw nga lu ñu waxanteeg yow defoo ko ñu sànni la fee boo boo déconné sax ñu porter la plainte. mitaal bu mu ñëwee ne mën na def plus que Coumba Rassoul ñu ne ko xayrut ak Mittal aussi ñëw de nakk-nakkal nee na vers les années 2007 xaw ma il y a mooy période crise bi mhm. mu ne à cause de la crise mondiale financière et cetera mais la rupture de ce contrat nous a coûté cher waaw mu ne mu ne mhm. mu ne lu mu mënoon a def mënatuma ko et cetera le président de la république ne lool c'est un contrat porté plainte bu mu porté plainte presque ñun mënoon nañu am 3000 milliards Mhm. qu'est-ce qui s'est passé avant que lépp ñu koy kii Macky Sall ñëw nangu soixante-quinze milliards te dégg nga seen xuloo bi ci seen biir ñas ne woon ne kii bi kii ne cinq milliards dugal nañ ko ci biir bi kii ne déet gisuñu ko ci mais loolu amul ci sa importance mais li am importance mooy xoolal par rapport bu ñu l'état parce que c'est pas ab Wade qui compte mhm. mais Ablaye Wade représentait l'état du Sénégal état du Sénégal ñu jox ko dëgg mu war a am milliards yu bëree bëri te ba tey Macky Sall bu ma ñëwee le nouveau gouvernement ne nous a pas expliqué pourquoi il a accepté d'avoir quinze milliards de francs possibles sur trois mille bu bu nekkoon dañu expliquer ba convaincre ñu que ñoom soxlaatuñu xaalis bi mais soixante mm. loolu mooy problème mu Moussa pour te dire mm. pour la question concrète oui. de Moussa Diop nañ ko war résoudre c'est ça xam nga d'ailleurs kii junj na ko le ministère il y a un code mhm. y encore benn kii boo xam ne l'ancien ministre de la santé dafa ITE moo ko jiite euh, Awa Marie Coll Seck euh, Awa moo ko ji mhm. mais c'est ça le le le kii la comment dirais-je le commissaire chargé de l'enquête na convoqué Awa Marie Coll parce que selon la loi qui a été lépp loo xam ne contrat bu ñu mën a def mhm. ak duñ ko defee tout doit être versé à l'ITE mu koy suivre mhm. comme tableau de bord ITE dafa war a am tableau de bord di suivre mais nañ convoqué Awa Marie Coll Seck. merci si yow Ngouda merci beaucoup. Ah, waxuma objet bi lu mu euh, doon de man ce qui m'intéresse en tant que Sénégal. c'était pas ah, dit l'objet de l'enquête. non ce qui m'intéresse en tant que Sénégal pour yëf yi leer. ñu bañ ñoo ñëwati fii encore di ñu këyit këyit loo pom pom pom ah. yooyu <laughs> mbir moo xam ne lu yomb la. mën naa leer. ndax nous avons des outils pour que mu leer utilisons ces outils pour